guddi ñaar fukkeel ga ak juróom-benn ku ci julli fukki rakka bu ci ne mu jàng ci faatiha benn yoon ak alqaarixatu benn yoon ak qul huwallaahu juróomi yoon bu nappee jéggul yàlla lu mu man des na ko musal ci sawara dana mel ni ku woor diir jamono jépp te des na ko ca bindal tuyaaba ju toll ni limu biddiw yépp ak xobi garab yépp ak tuyaaba ju fees diggante asamaan ak suuf te bu dekkee des na ko boole des na ko boole Jibril ak Mikail ak Israfil ak Israil ñu gunge ko ba tàbbal ko àjjana bismillahi rahmani rahim wa duha wal layli ولسوف يعطيك ربك فترضى